asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi ma axada wa lahu ma ata wa kulli shay'in indahu bi ajali musamma ñi ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi nuyu alxalifa cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass di nuyu al imaam Cheikh Ahmed Tiyaani Ali Cissé ndax mu ngi ci mbooloo mi di nuyu mbokk yëpp waa Medina waa Mauritanie ak taalibe yi fu ñu mën a jóge daanaka Cheikh Mouhamad al Aqibu li ñu ci war a wax Cheikh Mouhamad al Bachir jiitu na mu wax ko te xalifa bi lim xam ci moom kenn xamu ko waaye baati yu ndaw ak baati ngërmaande yu jóge ci njaboot gi gannaaw buñ waxee baat yooyu ñu ngi wax ci moom loo xam ne seedeel ko moom yomb na ndax koo xam ne loo wax ci moom lu baax ñi teew yépp mun koo dëggal Cheikh Mouhamadul Aqib kooku la doomi bàyyi la xissan wa maanan mooy ne doomi bàyyi la taalibe bàyyi la yarab bàyyi la boo xam ne képp ku ko gis rek mbaax googu nga xam ne moom la bàyyi def ci ñoom dana la xeeñ mbaax ak ku ci noppi mu ngi noppee gëm yàlla kuy wax mu ngi wax lu baax li yonent bi sallallahu alayhi wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut ku bëri woon noppi la waaye ku amoon xikma la buy wax lu baax rek lay wax imaam Cheikh Tidiane mu ngi fi wax na ci moom keroog bu toogoon mën naa wax ci moom loo xam ne mënuñu ko wax dëkk naa ak moom ca Qahira 73 ba 76 waaye wax ji yëpp fa mu ferenkulaayoo mooy jaamu yàlla bu baax la jaamu yàlla bu baax mënta feesu loolu jullit la boo xam ne mandargaay jullit yépp feeñ na ci moom jumaa ji dana ko jooy mixraab bi dana ko jooy minbar bi dana ko jooy jotaayu wazifa dana ko jooy alxuraan dana ko jooy mësta tarde wazifa nga dem fekk ko ci barab bi wazifa feneen lu may fekk nga ko mu ngi lal wazifa ak mbooloo yi mu nekkoon te loolu ñépp xam nañ ko ci moom Sénégal rek la nekkoon niroo na ak sëriñ bi lu bëri ndax ñoom dañoo mel nit Sénégal lañ tànn waaye bu daan génn rek Mauritanie lay dem ndax moom du teg nit lum manut te buggut jël ci nit lum ko buggut a jox te xam naa ci moom ne du def lum gëmut magam yi kii toog tey muy xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi fi ñu ko teg ñun xam nañ ko waaye ku ci nekk bàyyi rek lay xool ci moromam bés ba mu jëlee xilaafa la ci bés yooyu dem na ba ci moom waaye ni mu ko gàttandoo ku ko gis rek xam ne kii mu ngi lay wax ne kii mooy suñ kilifa nii nañ koy toppee Cheikh Mahi njaboot gi nga koy gërëm te mën nañ koo ñàkk gërëm ndax tey jii amul ku ko gën a jege ba mu déggee xibaar bi moo oote président ci boppam ndax man biñ may oo may wax nañ ko yóbbu Dakar ñu ne ma sëriñ bi oote na ba ministre bi oote na laajte na ñi war a dem sax ànd ak moom waaye boobu ñoom xam nañ ne lii xew xew na ba pare waaye bu fekkoon ne lu luñ mën a xaccoo la ak yàlla boobaa moom dana ko def taalibe yu bëri ñu ngi taxawoon taxaw taxawaay boobu kon daal eh, eh, ñàkk nañ waaye ñàkkuñ ndax yàlla jël na waaye bàyyi na bàyyi na fi ñoo xam ne buñ leen xoolee wettalikoo Cheikh Mouhamadul Aqib bu ci njabooti Baay ak ci taalibe yi ak ci soppe yi ak ci jarbaatam yi ñi nga xam ne ñoom ñëpp nàmp liñ nàmp rek mooy li nga xam ne liñ gàll rek mooy liñ nàmpoon kuy jooy alquran daal da koy jooy kuy jooy nit ku baax da nga koy jooy dëkk bi yëpp nag ay xaritam lañ ay mbagam ay xaritam lañ ay rakkam ay xaritam lañ ay doomam ay xaritam lañ ay sëtam ay xaritam lañ te loolu dara defu ko lu may mbaax gim baax ak yaatu gim yaatu bëgg gim bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bëgg taalibeem yi di leen xool ci moom ku xam farataam la ku xam li ko war la du ko neenal ñàkk nañ daal koo xam ne nii bu taxutoo nag am nañ yàlla ñuy wax ne ñàkk nañ waaye ku ñàkk loo xam ne boo waxee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla utal la ñu ngi koy jaale cheikh Mouhamadul Mahi di ko jaale magam Seyda Roqiya di ko jaale cheikh Tidiane imam cheikh Tidiane Ali Cissé di ko jaale Seydi Mouhamadul Amin mi nga xam ne am nag ku ma wax démb defe naa suñu jaay Seydil Arabi mu ne ba mu ko waxee daf ne ko aaqibu moom taalibe Baay la démb am na benn mbokk yeddaali wul diin mu nettali mi xissa bu yàgg boo xam ne sëñ bii moo ko ko waxoon cheikh Mouhamadul Mahi mu ne bi Baay génnee àddina dafa gént gis Baay mu tëdd ci benn lal boo xam ne moom rek a ci xaj taanaayu jublu penku waaye mu ngi ko gis ci waxambaane wu am ku mel ni boroom fanweeri at mu gis ne lii photo bi kii bàyyi la waaye kii bokk ak moom suura baay bi mu xam mu ne bi Cheikh bu ñibbisee mu xool ko gis ne bii laa gisoon mu ne ci jamono jooju mu nettali ko al xalifa Cheikh Mouhamadul mu ne ko lu tax nga gis bàyyi ci melow aaqibu moom lu bàyyi di def rek lay def loolu nag mooy ne ñoom bàyyi leen ñaan yàlla ne ñaan naa leen yàlla ca bu ngeen nekk ay awliyaullahi tabaraka wa taala waliyu xam nañ ne wilaaya amma am na bi nga xam ne mindeef yëpp a ngi ci yàllaa leen méngoo wilaayatullaahi am na wilaayatu xaqillaahi am na wilaayatullaahi moo gën a màgg waaye wilaayatu xaqillaahi loo xam ne njam yëpp a ko soxla te du dara lu may imaanu billahi tabaraka wa taala yàlla nañ uutu ci moom yàlla uutu ko ci njaboot gi ñu ngi ñaanal bi yàlla yokk taxawaayam yàlla dëgëral ko am na beneen mbokk tim boo xam ne ñàkk nañ ko tey muy mbokk taalibe muy Ahmed Kiné Lo la ko ñëpp xamee Cheikh Ahmed Dame Khalifa moom lañ ko tuddee baayam fii la nekkoon këram maamam tim ñëpp xam ko taalibe la waa Medina la jullit la tijaan la bëgg na baay bëgg na lim doon bëgg na Medina jullikat la ku daan ut ay turi yàlla kuy ut turi mooy koo xam ne dana julli farataam yi ba pare teg ca li ca tegu moom it génn àddina damm damm la ñu ngi koy jaale sëriñ bi di ko jaale mbokk yëpp di wax na yàlla yàlla wuutalal ñu lu lu gën ci euh, suñu way dem ci barke Baye barke Cheikh Ahmed Tidiane di jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sallam